asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa leen di ziar bu wér man Fatima di leen nuyu yéen mbokku jullit yi ci bis bu màgg bi di àjjuma di leen ñaanal di sàkku seeni ñaani di leen indi tey lenn ci ay njariñal ak tuyaaba teel a dem julli ji àjjuma imaam Ahmad Ora nee na wax na ni dégg na nga ñi mbindeef sallallahu alayhi wa wax ne bisub àjjuma malaaka yi dañuy toog ci buntu jàkka yi di bind ka njëkk a ñëw ak ka ca tegu ak ka ca toppaat ba ka ca mujj a ñëw nee na su ilimaan ñëwee ñu laxas seeni kayit daldi dem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaal na teel a jumaa ni mi ngi mel ni ku rend aw nag sarax ko miskin yi euh, ak ku rendi am xar sarax ko miskin yi ak ku jël ak nen sarax ko miskin yi nee na jumaa ku fa njëkk sa moroom rekk ëpp ko ab yoon kon nag mbokku jullit yi ñuy teel a dem jumaa di sellal bis bi nga xamante ne mooy àjjuma di bis bi gën a màgg ci bis yi ñu fasaale réew mi yépp suñu borom def fi naataange ci barke Xaadimal Mustafaa Seexul Xadiim jërë ngeen jëf